boogi barbaruk donoon la ku yàgg mu saala amar faa demba ma jaame jaame jaama jaam way sa faay mbay mu saala amar faa bergerie Adja Tabara Ndiaye ñepp ko ràññee ci élevage am xar mu bax mum fi la fekk bax adresse am nekk ci douane HLM Rufisque cité Tako fi bo fi ñëwee xet bo bëgg ci walu élevage amna fi lu ci melné fi de Satrek sa mère est une fille de Laksukabe Mambay Junior Fi de Satrek sa mère est une petite fille de docteur Fall Ma Ibre fils de docteur Fall petit-fils de magistrat sa mère est une fille de Bosco am fi tamit Isbak 10 de Teranga petit-fils de Forman petit-fils de Souberou manam dal xetu xar bo fi bëgg amna fi suñu téléphone modi 77 513 71 82 voilà 76 022 67 88 bergerie Adja Tabara salaamaaleykum mbokk tuuti si asalaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi fii si Mbacke fi ñu taxaw si Mbacke ne delul laaj ñoo ngi taxaw si course Mbacke ñu ànd sama caméraman ayaat ma feggoog sama grand Baara ak sama grand Cheikh toog si course Mbacke bi ñu am tey lu leen métti si course bi ndax course bi boo xoolee 2019 Couture rawoon na fee Auguste course bu doy waar te ñu doon fii course bi doon taxaw si course bi tey am ñu ñu yebal ñu fi ñu as 921 nuyu Cheikh ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay di du nuyu mboolem turfis yi mm-hmm. di leen balaax te di leen balaax mm-hmm. ah ñun nag ñun ñooy waa Mbàkke ñun lañ fi délégué ci nga xamante ni ñun ñooy ñi nga xamante ñu ŋànk course bi ñu délégué nañu fa actuellement course bi nag dafa am loo xamante ni moom moo ñu fi naqari mm-hmm. te course bi di course bu nga xamante ni ndono la loo xamante ni suñuy baay ñoo ñu ko fi bàyyil ba wax nga ko sa biir wax barki démb lañ fi mujj a dawal tey xoola course bi nii mu mel te jaaduwut pour mu war a mel ni course bii ndax course bi bok na ci course yi ñëk ci Sénégal muy piste bi gëna baax ci course piste yi kon nak war nañu mëna taxaw pour défar ko ba melni mel ni course yëpp ba nga xamante liñ ci bëgg lépp dañ ko mëna am légui nak pour ñu défar ko il faut que nak ki nga xamante ni tey ngank ŋànk réew mi mo mo ngank réew mi ngank jox ko ki nga xamante ni fim toll tay moy sunu maire jox ko ministre bi nga xam tay mom lañ doon xéxal dembu ak barki dembu muy galaba dañoo bëgg mu taxaw ci jappalé ñu ci jappale gi nak mënut wessu weesu ndax ki fi joge dafa amoon luñu nakari ci mom ndax daf ko bëggone jël am leneen luñu ci bëgg def ñu taxaw xex na du fi amé ñu ne galo kon mom lañ yaakaar kon nañ dem daw da tafu ci galo. est-ce mëna mën xam de la ngeen xaar ci galo galo la ngeen parce daw daaw joxoon na xaar pu ngeen wa dawal course bi daw ci legon nag faroñ ko si wéy lan ngeen xaar ci galo pour ngeen pour galo tay ci course bi tay ji waaw li ñuy xaar ci galo moy pour mu jàppale nu ndax dañ ko wax dañoo waxoon ne bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy xeex pour ànd galo mhm. dañ ne woon pour ñu ànd galo Gallo pour suñu course bi ndax course li ñu ra course moo ñu ñor mhm. xamuñu ñooñu course bëggul lu ñu course kon pour mu jàpp ne suñu course bi rek moo ñu ñor léegi bañ ko xeexlee ba nga xeet yàlla dogal na am na lii mu am daf na woon bu buñ paree danañ jàppale ci course Mbàkke mu defaral nu ko ba mel ni comme course yëpp ñu ci dawal comme ñëpp préparé nañ fi barki démboo Ndiaye course bu nga xam ne dañ ko mujj renvoyé bien vrai que ne jàpp na ci am na lu mu ca joxe waaye ñam ko joxoon dafa am feneen fu ñu ko def waaw feneen fañ ko def na foofu moom neexuñu te war nañ koo mën a jël tey defaru defaree ko course bi ba bu ëllëgee bu ñëwee ñoo xam ne borom kër gi defar nañ këram waaye course bi nii ñu ko bëgg a bàyyee moo dul yoon moo nu naqari ba tax ñu bëgg a taxaw nag ñëw ñun ñu mobiliser wu ñun doomi Mbàkke yi nga xam dañoo bëgg course taxaw ne dañuy jël suñu li ñu moom course bii nga xamante ne bii moom la ñu yàlla jox ñi dese ko fi tey jii bu demee ba nga xam ne ñu ngi ci dégg leneen ak leneen ba tax ñi bëgg ci sàkkal pexe wala leneen dañoo jaral suñu bakkan yi ñu jël ko tay la ko ndax course bi bëgguñ koo ñàkk tey bëgguñu koo ñàkk ëllëg ki nga xam ne mooy Galo moo fi nekk ànd nañ ak moom maanaam jàppale ko si bépp côté combat yi nga xam ne moom la fi def ba yàlla may ko ndam jàpp naa ne doomu dëkk bi la lépp luy defar da koo war a da koo maanaam da koo war a yokk waaye wuru cee wàññi ñi wax ne tey boo xoolee muy Bamba muy am di ñii fi toog ñi ay topp ku lim juum dañuy jóge fii maanaam di dem Thiès di course am ñoom ñu nga fa kon course moo leen ñor te li nga xam ne moom lañ am muy course bi am waa Mbacke mu ngi nii amul benn benn course bu ko gën benn course gënul course Mbacke kon nag li nga xam ne xam naa ne li nga xam ne moo fi nekkoon yàlla def na fu mu toll nii ndaw yu am pëseef ñu ngi fi bëgg nañ lu dul course bii di dawal te ñu dekkal course bi kon nag tàllal nañ ñëpp loxo pour ñi ñëw jàppale ñu si xeex bi ñuy xeex nii. ñun mën na leen ay jeunes lañ amuñu leneen lu dul course course lañ am moom lañ xam bañ nañ ko ba euh, bi wee fii maire bi njëkk a ñëw tey dina day laa course bi amul kii fii la far amul kii fii lañ xeex ak fii nga gis nii tey. fi la tegoon xeer ne day day natt ay pono ànd ak préfet bu Mbàkke mm. biñ ñëwee ñu dañoo ñëw taxaw takk suñu mose rouge na ko nag course bi ku ko jël da nga jël suñu bakkan mm. ñu dellu ginnaaw moom mi nga xam ne moo fi ne muy Galaba di meeru Mbàkke bi mu ñëwee moo moo moo la doon dawalal journée bi ñëwee ñu wax ko na ko carrément ne kat maire fi ne da bëgg a saboter pour mun a ne course kenn du ko jël mm. dem ba grand prix chef de l'État toog ñu ñu teg ko ci plateau bi bokk ci pare yi taxu daa ne mbàkke kat la la am moomeel la kenn du ko jël mm-hmm. kon jàpp naa ne xeex ba mu nekkoon ci ñun kursu mbàkke bii mm-hmm. war na ko mën a sàmm bu bu ëllëgatee mm-hmm. waaye man wax dëgg yàlla dem naa toog ak moom biroom man ak bàyyi mool si na seek per sawru ma ngi yi fi nekk bi ñu toogee moom bureau mu xamal nañu nañu Mbàkke li fi nekk fii dootu am dootu doon ci course ndax fii xalaat nañ fi leneen lu dul course ñu ne kon mën na ko nag ñun course lañ bëgg moom lañ xam moom lañ am jàpp naa ne nit nag moom bu dee bu di ko jël da nga koy da ngay dem ba ñu xam ne mënatuñ ci dara nga jël ko suñu loxo ndax jàpp naa ne fii nga gis ay terrain football lañ ka yaa ngi nii gaawaan daaru salaam ba boulevard benn benn espace bi moo fi dese te ay ay ndaw fu nekk fokk ñu fo lépp luy war ay agression mooy ay ndaw toog amuñu lu ñuy def ñu dem agressé waaye ndaw bu 18 heures jotee nga takk see daal ñëw football entraîné doo am bu timis jotee nga soog dem tëdd nelaw kon jàpp naa lii moomeel la

def nañ agé tout récemment après Kazu Rajab bi bi defé assemblée générale bi ñu doon xaar gouverneur gën arrêté bi def nañ groupe bureau bi ba ba ba inspecteur bi yóbbu ko légui def nañ ñu doon xaar na gën arrêté bi comme ça ñu mën am journée fofu lañ tolloon donc sur ce ñun li gars wax rek dañ ci yok mais man li ma ci yokk mooy lenn euh, course bi ni ñu dañoo judd fekk fi course bi te yaakaar naa ne ñun ñëpp bëgg course euh, bëgg course nak tax rek taxut dañoo bëgg course di ci dund ñun ci di dem ci course yi course fu mu am yow ñoo fay nekk nag yow ña nga fay dem tey ñu ngi demal suñu suñu suñu suñu suñu suñuy nawle tey bu course mbàkk amee ñu war recevoir suñu ay nawle fa la bu ñu jaayee course bi recevoir loolu c'est une la loolu la ñuy bañ nag ñun te bëgg nañ ëllëg comme dañuy suñu ay parents bàyyi ñu fi dara dara loolu lañ loolu dara course bi waaw ñun suñuy bàyyi dañ fekk ñu yor course bi yor bu rafet course Mbàkke ku ne dégg na ko fas wu ne raw na fi ci àdduna course bu ne tëgg nañ ko fi sa tëgg àdduna xaj na a course nam daan ay bu njëkk ak léegi ni muy demee moo doonul benn ndax fas yi fi mu nekk nii pour nga am euh, pour daw si il faut terrain bi baax course bi set te it yoo jor ak fas a jor ay vingt millions dix-huit millions trente millions di daw si kii bii te it course defar caaxaan defaru man mi ma ko xaadim mi bëgg ah bu amee ko xam ne mën nañu jàppale bañ mën ko defar mën nañ dawal si waaye bu dee kii nii dong nag caaxaanum dawlu fi te it borom fas yi ba ñu dawal seen fas ci course dañu xool terrain ba terrain bi condition yu baax lay dem. ñun nag course bii nga xamante ni moom lañu am muy course Mbacke nañ ñu ko fi bàyyil course bii lañ bëgg. nañ ñu ko fi bàyyil parce que boo xoolee daara jolof nga ne barki dem mondial lañ uni lañ unigré course boo xamante ne amul dara ñun nag suñ course bi am na miir liñ bëgg mooy dañuy lancer appel solennellement au président monsieur Macky Sall di ko lancer monsieur Yankoba jatra muy ministre des sports di ko lancer CNG course épic bu Sénégal di ko lancer ñi nga xamante ne dañoo bëgg course ku mel ne Cheikh Tidiane Niang ku mel ne Omar Bao Junior Lamine Diop Sidi Ndaw les frères Ndiouk euh, Babacar Madjik Fall Ale Diagne xam na mu baax euh, Pape Seck Paul ñoo la ciy lancer. mooy sa général mooy sa sele moom it amuñ fayam gis nañ doon nañu jàppale ci xeex bi dès le début ki nga xamante ne moo fi nekkoon muy Abdou Mbacke Ndaw fi la nekkoon ba koo jël comme ni ko Baara dem waxee rek il a bien si di ñun ñu si dara. course bi képp ku ko bëgg a jël da ngay jaar suñu kaw nga rey ba noppi suul ñu fii parce que lii dafa nekk loo xamante ni ndono la suñuy maam nekkoon fi suñuy baay nekk fi léegi nag ñun ñi nga xamante ni ñooy ay jeunes dañuy dawal comme ñëpp parce que ñun course lañ am kenn ku nekk li nga bëgg ñiy làmb ñiy course te course bii dafa nekk loo xamante ni boo dee xool fii y a plus de cinq à six sept ba ASC yoo xamante ni à chaque fois fii la ñuy entraîner mu nekk loo xamante ni lu am valeur la léegi ñun pourquoi pas ki nga xamante ni moo fi nekk muy monsieur Gallo Ba nañu ci jàppale parce que moom dañ koo jàppale woon ba toog maire Mbacké ba noppi joxoon ñu caution ñu waroon a dawal yàlla mi dara tawul ki nga xamante ni mooy euh, suñu xalifa Mamor jaara muy sëñ Abdou Yàllaay Buur suñ borom weddi loolu moo tee dawaluñ ko mais li ñu bëgg mooy ñu ngi koy lancer appel. mu dimbale ñu jàppale ñu ñu defar suñu course mën a dawal euh, euh, journée comme ñëpp loolu lañ ko bëggee. gaa yi nag tënk nañ lépp lu mel ne grand cheikh ak Baara ak Pape ak Pape Top wax nañ ci lu bari waaye nag damay man damay yokk ci benn côté ci autorité yi nekk si dëkk bi muy monsieur maire di nekk ministre jamono yi ñu toll nii jiite yi nga xam ne moom mooy euh, emploi tey jii daana mën naa ne course day créé moo waaw am ah, rek mooy kii la. Euh, am na buntu bu mu mën a jaar ndax course ku koo xam xam ne day créer d' emploi hmm. ñaata junni nit ñooy dund ci course yoo xam ne ay nit ñoo leen jël privé di leen di leen fay xaalis hmm. te loo xam ne moom moom la waroon hmm. course da koy jàppale ci lu bari coow nag damaa yaakaar ne président de la république yëgu ko ndax président moom ci defar la toll fi mu toll nii tollatul ci xëccoo ci defar gi mooy mooy day fekk loo xamante ni amutoon mu créer ko boo demee barki dem gis nga ko Daaru Jolof def nañ daara jolof Mbàkke nag moom soxlawul loolu ndax dafa am hippodrome ba pare léegi defaraat la am gis nga dëkk ñu dëkk ñoo koy defar muy surtout ki nga xamante ne suñu borom may na ko ay tànk muy ni muy joxee ni muy joxee football wàllam joxee ko basket wàllam joxee ko leneen leen wàllam loolu course amee wàll ci Mbàkke buy defar day boole ñëpp mu defar ministre tey jii ministre ba Diattara ñëw ñëw na fii ci stade ba pour doon def visite bi tey mënoon na koo indi ci hippodrome bi tamit ku xam Yankhoba Diattara xamee ko course Thiès sa dëkk yàgg na nettali na ko yàgg na tëb miir pour ñëw seetaan ci course kon kooku du dellool course ginnaaw lu defar rek lay lay wut Yankhoba Diattara moom lay lancé appel ministre des sports ne ko suñu hippodrome bi nga xam ne moom la ñu am ci Mbacké muy hippodrome boo xam ne dafa nekk ci xolu Sénégal parce que deux deux de temps nga ak Dakar une heure de temps ak Thiès Louga ngi nii Kébémer ngi ngi maanaam hippodrome bi dafa nekk hippodrome boo xamante ne li Baara wax amul benn course boo fiy tëgg te mbooloo dajeewu fi mais boo doon def entraîné dix mille sax nit ñi dañuy ñëw seetaan si ko parce que dafa nekk ci xolu Sénégal lépp nag bu lii bu amee liggéey bu rafet bii nii nga def yow ànd ak sa caméraman ñëw pour ñëw wane ko nag dañ la ciy jaajëfal dañ la ciy félicité ba tëgg yàlla am média ci dëkk bi ñëpp ñu dëkk mais amuñ ko mu mi jugee ba Thiès ñëw defal ñu ko sant lañ lay def ak gërëm la lii man man la waroon man mi nga xam ne reporter laa ci wàllu course maa waroon indi sama caméra ñëw mhm. yàlla suñu borom def ko mu sotee ci yow mais dañ lay sant di la gërëm di gërëm waa H221 di gërëm góora mam ngañ nga ay équipe bi yëpp su ma limee damay juum gis naa liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey ci ci course hippique mhm. wax dëgg ba ngeen ñëwee yàggul mais indi ngeen ci loo xamante ne nii euh, tax na nit ñu gën a bëgg course am ñoo xam ne daawuñ ko seeraan sax mais grâce à 221 euh, dañ koy seetaan di ko bëggee di la woo di la encouragé côté bu nekk man dañ may woo di ma wax ne ma seen site bi nangam ak nangam ma xamu ne man nekku fa waaye comme ci course laay dund rek dañ may woo di ma ci ñaanal di leen ñaanal ñaan yoo xamante ne dama naan amiin te xam ne bu ñaan gi nangoo ñun ñëpp ñoo koy jëriñoo bokkar ñoo ngoon taxoon fii si course bi maa noona les jeunes les baam turfistes yi ngi si biir boo nee Bamba doo ko wax nga wax am am amari mu ngi si biir wax dëgg yàlla ñuy ñaan rek loolu la ñuy wax comme lu amee sama caméraman ànd ak waa H221 ñuy xale ñun fépp fu waay nekk tàllal ñu loxo rek mun pare nañu pour la foofu ñun course rek moo ñu ñor parce que ñi suñu ginnaaw ay xale te réew xale ya koy mujjee na course bi ko bu moo ko ñàkk tufis yi ñoo ko ñàkk amateur yi ñoo ko ñàkk képp ku si teg loxo ba mu jox suñu coup de France seen coup de France ko course bi ñu xam na ya amoon na soo xool li mu des léegi motu 6 hippodrome te Louga noonu nan leen fexe mbaa ngeen jot seen kursi ay xale nañ tàll leen loxo Galaba li la lebal kaay fayaat ko xale yi day amaat day amaat de te day amaat élection day amaat da ngay soxlawaat te ñii ñoo ngi fi waaw kon te lii te di fi nekk liggéey bi bariwul jàppale xale ñu tëgg suñu ne turé la ko parce que loolu la nga leen deseel bergerie Adja Tabara Ndiaye ñepp ko ràññee ci walu élevage am xar mu bax mum fi la fekk bax adresse am nekk ci douane HLM Rufisque cité Tako fi bo fi ñëwee xet boo bëgg ci walu élevage amna fi lu ci melné fille de Satrek sa mère est une fille de Laksukabe Mambay Junior fille de Satrek sa mère est une petite fille de docteur Fall Ma Ibre fils de docteur Fall petit-fils de magistrat sa mère est une fille de Bosco amna tamin fi tamit Isbak 10 de Teranga petit-fils de Forman petit-fils de Souberou maanaam daal xeetu xar bo fi bëgg amna fi suñu téléphone modi 77 513 71 82 la 76 022 67 88 bergerie Adja Tabara mon élevage. Shabbat. Shabbat.